jërë ngeen jëf mbokki internet yi dal leen ak jàmm rek ba tey say révélé yoo xamante ne si rek kooke di Ibrahima Sall daat na koy def rek ginnaaw ba mu exilé woon demoon rek foofee sa réewu Mali mu daal di nag dellusiwaat fii si réew mi ginnaaw ba lépp jeexee nguur gi fi nekkoon daal di daanu keneen daal di jiite li nga xam ne moo di bi mu de Bassirou Diomaye Diakhar Faye sa la génne rek moom di xam leen rek mu tudd sa ay kilifa yoo xam ne daat lañ leen war a jàpp kenn daal di leen war a bàyyi noonu jàpp leen ba ñamal leen xam ne lan la kaso di saf kookee di Ibrahima Sall daal di rafetlu yu mel noonu tudd sa ay tur ku si mel ne général Moussa Fall ak yeneen yi tur Antoine Félix John Farba Ngom ak yeneen i tur yoo xamante ne si ne kookee rek di Ibrahima Sall daal na koy rafetlu xam la rek kenn waru leen a bàyyi ndaxte nag patriote yi loolee du ko bàyyi benn wala sax moom du bàyyi loolee nag mu sedd benn ndaxte nag jàpp na ne ba ni xeex si combat bi nag loolu loon jaayoon li nga xamante ne si na moo di Sénégalais yi ak projet boobee kon nag loolee duñ xaar ba falu nag di ko bàyyi benn yoon mu daal di sedd moom nag mu see xam la ne loolee di ko bàyyi ah, benn yoon kon nag ñoom ñi xam ne ñoo jamono ji ñoo falu si réew mi te ba ni campagne procès rek la campagne woon li nga xamante ne seen moo di Sénégalais yi patriote duñ bàyyi loolee mu sedd benn yoon ndaxte nag ñooñee jàpp na na danoo tooñ askanu Sénégal ñu si bëri bëri dal leen a tooñ ba tax kookee di ah, Ibrahima Sall génn di sa rafale di sa yëkkati kàddu ak jàpp nga xamante ne seen rek naroon nas ka jàpp mu daal di exilé wu daal di dawoon foofee samali mi xam le ne rek kookee di doomu Macky Sall di Amadou Sall moom moo joxe woon rek ndigal ñu naroon ka jàpp moom kookee di Ibrahima Sall xam le lu mel noonu ginnaaw ba mu yëkkati woon ay kàddu ña demoon fa fay sa kër Ousmane ah, Sonko xam leen ne rek ay kilifa ñoo fa deman pour waxtaan rek li nga xamante ne si ginnaaw boobu salan jox doon ndigal naroon ka jàpp sala dawoot daal di génn fi nga xamante ne si moo di roon sàll te jamono ji rek mu daal di ñibbisiwaat fii si ay mbokkam fii si ab dëkkam ginnaaw ba lépp jeexee jàmm daal di dellusiwaat moom kooku di Ibrahima Sall